yàlla waaye jël ñaanal yàlla jéem ba léegi ñu ngi fi di ñëw ñu ne ñu ngi nuyu sant ñu leen di jaajëfal ñu ne waaye bu bu nekk ñu ngi defal yàlla fay kon ku fi teew rek indi yàlla sa xaw ku fi indi jàngoro yàlla na yàlla faj kon lu bëgg ci yàlla yàlla gaaral wala sa ji yàlla na yàlla gën a yokkal te barkeel ko incha allah soo ma tànnee comme ni soo nga soo am nga jox message bu ko war a mën a yëngal tuuti Modou bisimilah. ak nabi al muntaza dunya مرحبا بي الممتاز دنيا وجيلنا سواك

محمد فكل فوت تسنيا وفاق جمعنا يا مؤمنا درجة الوفاء خب المرسلين يا تلاو درجات الرسل كل نبي ورسول يطاف خلق الوسيلة والمتبع عمدنا ما ما مسار والفاء بحمده كلما سمع جعل وانا من كل سنه نوتو kon nag nga ànd ak DG ak délégation bi nga dem représenté ko wala nga leen installé sax pour bañ a àndal moom dellu si ci gërëm aussi di ko ci sant parce que nag bëggoon na ko lool lool lool di wax ak moom ba dem ci dugub ji. joueurs yi également douzième gaynde waa Alekaza waa lépp bi yëpp dañ dem gis ko sax nag ku nekk dafa la benn parce que nag Sénégal bi ñu naan kàpp yi moom dafa naan ni ngeen xam ne ñun benn kàpp yi la bi mën nañ tourné nekk et jour boo woo ñoom seen kii bu doon ne image bi mu demee ci football bi dafa rafet lool. man nag suñu diggante du ma ci parce que maillot bi muy footballé sax numéro 8 dafa naa man maa ko ko jox dafa jëlee numéro 8 moom lay sol ba tey. papaam maa ngi moom ñoo dugandoo bëri quartier en 1981 ba tey moo fi fi fi ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtada doomu Serigne Serigne Touba Khadim Rasoul li ci papaam man doy na ma sëkk wan nañ incha allahu rabi fa mu nekk moom gën fu fi mu nekk témoignage yi def yëpp rafet na waa koñ bi d'accord nañ waa doom ji li mu def ci président Touré doom jaa mu ko sant bi Touré wàccee liggéey di président ni mu terale Fapal tey noonu la terale que dara wax ak moom aussi ñu ngi yore pouponnière yoo baax nga nekk parce que booy dem bàyyi fi garab bàyyi fi teen baax ñu firndeel chef daal nit ku baax la ku ma am kàddu ja moom ko xam ne sori donc au nom du président Augustin Senghor ak l' ensemble du comité exécutif ñëpp ku ci nekk xëccoo na kuy ñëw mais xam naa bëri na amoon moom moo tax ci biir bëri ñu ànd ak bëri ñu ci biir ñu boole man secrétaire général pour ñëw présenter ko. ministre bi am fay nag ñu war a ko expliquer ñu woo ko dañu ne à 15h la délégation du président de la république ministre bi am fay mooy représenté Lat Diop man ak secrétaire ministère bi la ñu waxee à 15h pour ñu présenter seen coordonnateur parce que nag yàlla defal na ko loo xam ne tey foo xam ne am na lu xew ci sa famille. ba borom njiitum réew mi yëpp ko ci boppam loolu defe naa ne ku ne ñaan nga sa doom te teraanga moom yàlla na topp bàyyi bi nga xam ne moo ko ci yàlla toppee ko ci moom mel ni mu mel ba ñun euh, euh, moom fu ne ci àdduna bi et. tey bu ñu fekkee fii man ñi incha allah 16 heures lañ war a dem Côte yàlla def loolu fekk fi dañu déplacé wu ñëw ci moom ndax dañu xam nit ki dayo bi ñu am ak ni mu mel ko président Mbaye Diouf noonu la ñëpp dañoo jàpp ne moom mooy capitaine bu leen ci mooy capitaine ndax dafa nekk capitaine boo xam ne Cheikh li ko téye ci équipe bi mooy mën a defaral mën a jegale nit ñi mën a takkale nit ñi te la ko andi ci biir xam ne moom jóge da ko jële wut ci ay waajuram jële ko ci quartier bi mu màgg kon du mel du doon leader doon tey cheikhu xeebul kenn cheikhu ku mu gis da lay ñëw na ko boppam xeebul kenn kon vraiment dañu ñaanal yàlla góor gi suuf euh, sax lool ci kawam et eh, wax dëgg fa yàlla macha allah yal na yàlla yërëm yal na yàlla def ay mënees. oustaz bi dina ñu suuf. salaamaaleykum wa rahmatullah. Khalifa ak salaahu mais ñun nag moom moo rek la saw moo tax mu ne kàllaa la ma yetti maa amalaw mbokk yi li ngeen jóge nii du kër du bale bon la ay armeel la te armeel am na ci islam lu mu ci jàngale imma rawdatun min rawaati janna aw xufratun min xufat naar li ngeen yaakaar ñëpp ngeen daje ba ku nekk ci xel-xel léegi li mu leen waroon jàngal mooy nekkati li ñuy daw bu dara nekkati yëpp moo gaaw a fàtte loolu mooy yàlla di fàttali mooy lan yaa ayyuhal insaan maa gharraka bi rabbikal kariim yow doomu aadama lan moo la fàttaloo bi rabbikal kariim lan moo tax voilà lan moo tax di jàngale ginnaaw bi bu amee ba pare ak ak lu mu mën a def mooy amuñu droit di soxla moom lenn lu dul ñaan soxlawul lenn beneen protocole bu ñu ko jox yàlla. mais li ci dem jàng ci kaw di jàng ci kaw ay jàng waaye lii moom mënul nekk ay jaabante ak loolu koo xamee ne feebar ay at. ñii ñëpp ñëwoon nañ fi. Modou. ku nekk nga waxal sa bopp est-ce que am na ñu mën a seeti. na am na ñu tax leen ko. dañoo bëgg ku fay ñu wala yàlla fay ñu. ñaar yooyu rek moo am. fayu yàlla ak fayu nit. fayu yàlla nag moom du jeex. wala aaxiratu xayrun wa abqaa. fayu nit nag mën na am poste yooyu ñaari fan. armée moo koy nekk yaquli sa maali maali maali sama alal sama alal sama alal lan nga am sama alal bi illa say an labistahu fa ablaytahu loolu la ñu yëpp mu rab ëllëg xel aw akaltahu fa ablaytahu wala nga lekk mu rees te xam nga fan lay aw saddaqta bihi fa am maanaam loolu nga dabal masabam la te loolu mooy ñu intéressé nit ñi ngir may leen imaam yi may leen kilifa yi ngeen ci jàng ci lii parce que ñun dara du jëriñ ñun fii am yàlla nee na beneen fois ci amul benn jëriñ parce que loolu yëpp day jeex tey jii kii dem foofu laay mujjee kasi haramun لكل أنام asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. da ngeen di déglu tuuti. ngeen may di jiw yi te loolu di ñu si yàlla. Paa Sane bu dëkk fii yaayam lan kii la. Sane bu dëkk fii. Paa Sane. dégg nga man laa yoroon waxtaan. Moussa boobu gën a mag si Moussa yi kenn tàggee kenn deewul kenn du Moussa ba léegi nag bu la ñëwee si Moussa ba ñëpp a yor ak tànn xam ne tey yàlla préparé leen natt si dee dinaa leen natt si wàññi alal yàlla mu ne dinaa leen daal si biir koor ngay dëgëru baax Thank you.